avant ñu sukkandikoo ci ni bi waaw li ma bëgg daal mooy gis nga dossier Mame bii bi ñu koy tàmbali gars yi dañ ko xeeboon dañoo wut ay gars yi teg leen ci plateau yi ñuy jéem a gëmloo nit ñi ne dossier bii nit mën na cee ñàkk a nekk candidat gis nga appel bii dama ne mënta nekk man ñu àtte ma man ñu jàpp ma ci lu dul yoon tëj kaso àtte ma àtte bi neexuma ma def appel. ñu bàyyi ma ci biir kaso bi ma tëdd daa ngi may dégg mhm. keneen koo xam ne dañ koo atte atte ba néexu ko moom ma nga këram toog mook jabaram mu ñëw def appel muy ab sénégalais may ab sénégalais ñi nangu bàyyi ma ci kaso bi man dem ca kee di ko régleel ab ab ab ab dossier te lépp mbirum politique ëmb ko dama ne la loolu jërul xel di ko xalaat jërul nopp di ko dégg booy yi topp Sonko laay waxal su ngeen bëggee su xeex dem leen ngeen dem ci mbindum électoral bi le 6 avril lay tàmbali pour te dire mooy képp koo xam ne amoo carte d'identité wala koo xam ne sa carte d'identité non votant lañ ci bind yow doo sénégalais maanaam mënoo tànn kenn jërul ngay bëgg Sonko jërul ngay bëgg Idriss Seck mun doo sénégalais buy tànn bu dee nag loolu da bëgg mu dañ le 6 avril ba le 6 mai man ngaa dem ci chef de quartier bi nga wut fa résidence dem ca mairie ba ñu wax la ni ngay def doo fay dara. domicile ngay jël chef de quartier domicile ngay jël ci chef de bi laa wax dem ci mairie bi jël fa résidence dem ci bindukaat bi rang doo fay dërëm ñu dindi la ci liste ñi nga xam ne non votant lañ leen bind bind la nga bokk ci ñiy vote bu suuru élection yee jotee nga mën a demal sa bopp ba ci bureau de vote yi nga vote loolu mooy combat bi nga xam ne jàpp naa ne moom la Macky Sall sax soxla moom la Bougane soxla moom la ñëpp soxla moom la Ousmane Sonko soxla soxlawul ñu leen di gëmloo naan leen ay appel ak ay lu ma xamut. dégg nga dossier bii tegoon nañ ci seen yaakaar ji nag lool waaw waaye yaakaar ji nag yàlla daa dogal daa tas comme ni seen yaakaar yàgg di tase ci Ousmane Sonko. waaw ndax man dama koy dama koy wax fii am na ñoo xam ne du ñu yeewu mukk dégg ci seen nopp bii wala ñu gis seen si gis bis bii luy sedd seen xol ci Ousmane Sonko te loolu moom dama koy ñaan yàlla bis bu set te yàlla dana ma ko may. maag ñu bari nag maag Mouhamad ñas ca lew naag alaaji Malick ñëpp ñëpp ngóobe sekk ak ñépp d'accord dégg nga mooy yàlla man de dama koy wax nii laa koy waxee léeg-léeg de mm-hmm. yàlla yàlla bu Moustapha Jaxate xëy mm. baa maître El juuf Diouf dégg ci seen nopp yi baa ñu gis seen bët yi lu leen di bégloo ci mbirum Ousmane Sonko waaw arte pexe muñ ko pexeel rek yàlla na mujj nekk luy tàngal seenub xol ak luy naqari seen bët ak luy naqari seeni nopp yàlla bu ñu am mësa a am lu leen di ci mbirum Ousmane Sonko te duñ ko mës a am ba ngoonuk élection yi bu ñuy déglu rajo rajo dana naqari ci ñoom lool Moustapha euh, euh, Diakhaté ak Mambay Moustapha Diakhaté euh, ak Mambay ñaan rajo dana naqari ci ñoom lool la 25 février ndax danañ dégg mbiwu mbiwu tell tell ji te duñ ci man tus <laughs> barki sëñ Tuubaa xam naa li sëñ li sëñ Bara wax ni procès Mambay ñaan Ousmane Sonko maanaam dossier boobu hmm. nit ñi dañ koo jàppe woon lu oyof fekk weesu na ko dañ koy gëmloo nit ñi ci suuf di ko gëmloo nit ñi ba nit ñi gëm ko ñu jéem koo nekkal léegi appel bii dañ ciy jéem a nekk di gëmloo nit ñi di ko hmm. loo nit ñi ba mu woyof ci seen bopp yi ñi hmm. woowaat ko maanaam waxu waxu fii moom kenn du fi woowaat Sonko suñ booyi di dee dëkk bi tàkk xam nga ñoom dañoo dem fay ay dof ndaye ay lu ma xamul naan leen euh, dugg leen ci dëkk bi nee leen kenn du taal suñ koñ ay pono eh. sita léegi sita am nga liggéey mais Cheikh Ba dof nday am ko nga liggéey waaw dof nday am nga liggéey sarko am nga liggéey papa am nga liggéey d'accord da ngeen a ragal ku taali pono ak ragal ku gaañ seen i gone oh. atte bi jeex na mambay nee na da koy yëngalaat jóge jóg wax ak moom léegi kenn du fi woowaat Sonko dëkk bi di bloqué léegi sëñ Bara man waxuma sax loolu na leer léegi may ko ma poser question maanaam ah. man waxuma jëmmi appel sax bañ appel waaye procès bi ci jëmi bopp maanaam dossier bi ci boppam li ci xam naa ne am na luñ lu mu ci doon ut moom Macky Sall te am na lu mu ci am as as néew mooy lan euh, moom ci boppam xam naa bu dee jafe-jafe ci wàllu bokk moom lañ ko doon wax au début waaye dem na ba ci biir léegi yenn wi nga xam ne moom la ko nit ñi bëggoon a téeñ yenn ko paan bi moom mu jël paan boobu faw ab téeñ fexe ba yenn ko ñi nga xam ne ñoo ko bëggoon a yenn c'est-à-dire ku ci nekk fi mu toll sànq rek sëñ Bara koy wax naan xalifa sàll na fexe ba euh, wax ak macci sàll pour mën a bokkatam ak yooyu ak Karim ko doon wax léegi lu mel noonu bëggoon ko def ci Sonko c'est-à-dire moom ñàkk bokkam moom Macky Sall loolu la doon wax au début fexe na nag ba teeñ woowu ñu ko bëggoon a yem ci mënoo bokk mënoo bokk fi mu toll ku ci nekk ci ñoom sa bokk bopp moo la moo la doy soxla parce que retour de leen c'est-à-dire problème la ko ba retourné ko ci ñoom léegi nag lu jëm ci lii loolu xuwaan wax sànq li wax plutôt ba ba ba ñu dàq ko Sénégal moom ñaaw la dàq gan ku koo xam ne nii vraiment mënoon nañu ko defee neneen ak lu mu a bind nag waaye baatu tyran boobu ci boppam bu fekkee ñi dégg tubaab te mën koo seet ci google ak fépp tyran moom la lay tekki mais koo xam ne da ngay jël puissance souveraine en tout cas ñu bari noonu lañu ko définir bopp di ko exercer arbitrairement et sans contrôle mais Macky Sall loolu la nekk di def kon bu ko xuwaan waxee tyran moom weesu na tyran di dem lo lo loolu loolu ne parce que moom lii muy def lu lu arbitraire képp lay def parce que Macky Sall moo taxaw fii wax ne dégg nga bu fekkente ni dossier yëkkati nañ ko mu biir na ma ni suñ ko yëkkatee day tar réew mi duma ko def du ma ko def dama ci dégg sama tànk ñu laaj ko fii mu ne du ma ci wax du ci nangam c'est-à-dire Macky Sall ci jëm bopp ba mu moom maanaam lu mu doon ci réew mi ak nu mu bokkee ci réew mi lu tax moom mu war a mën a teg nit ñi ñu mel ne lu taxaw ci paanu laaluy mbépp kenn xamul ci loo taxaw toog ci nen da bokk du ma bokk dinaa ko wax duma ko wax saa à dire na am courage wax li mu am pour wax nit ñi am courage taxaw jëflante ak moom li ñu am pour jëflante ak moom euh, tyran boobu nag da koo jëf ci lo parce que koo xam ne yow da fekk exécutif pouvoir la législatif pouvoir la judiciaire pouvoir la yow nga bàyyi sa exécutif bi nga yor te ay nit képp la ko jox muy état nga dikk ne da ngay dugg ci euh, justice judiciaire ne ay dossier bu amee léeg-léeg bu ma wóoree ne damay dama ci dëgg sama tànk Ali Ndaw moo taxaw fii procureur <coughs> daat ne moom ci boppam mu ne naa bàyyi Abdoulaye Baldé waaw léegi président bu mel noonu taxawal fu lu tax président bu mel tax loolu nag la Aliou ndaw la la nit ñi fàttee laaj d'accord xam nga taxawal lu tax mu ne bàyyi leen Ablaye Balde waaw Ablaye Balde mooy jëkkëri euh, doomi Macky Gassama mi ñu tuddee Macky Sall ah ci ci mbokk ak ah waaw dama ne Balde waaw Macky Macky Sall Macky Gassama lañ ko tuddee waaw moom moom bàyyi bàyyi Macky Sall ak bàyyi Macky Gassama daa ànd ah. Macky Sall ak Macky bàyyi Macky Sall laa wax. waaw ak Macky Gassama ñoo doon ànd. d'accord ca Fatick. waaw Macky juddu ñu tudde ko Macky Gassama. waaw doomi Macky Gassama moomu. waaw jabari Ablaye Balde la. d'accord yow seen feeñal nga ci na lu bari. jabari Ablaye <laughs> ne ko léegi. jàppal Omar Sarr sama yoon nekkul. du sama mbokk ñu bari sax ah? dañu jàppoon ne. jàppal diw du sama mbokk ñu ne kon Ablaye Balde mu ne eh, kooku sama rakk mooy jabaram ba bu leen laal loolu mooy république. waaw léegi léegi. xanaa xamoo Sénégal lu bari dañ ko dul wax. waaw Hadjibou Soumaré mii waaw madame euh, Fatima Giro jabaram hmm. ak Marème Faye comme xaj ak muus waaw waaw hmm. maa la ko wax ñoom ñaar conflit yu ngand lañ am depuis ba ñuy ba kii nekkee premier ministre kii remplacé uh-huh. alors léegi yow ñoom yow bu jekke affaire yooyu boo jekke-jekkee lu yomba yomb ñu capté ci waa ji def ko garda yi benn guddi da nga naan est-ce que du euh, waa léegi xam nga rek yu mel ni ah? uh-huh. yooyu day am république bi moom uh-huh. ak ñeneen ñi nga xamante ne dañoo nekk ci kaso bi ci nekk goo xamante ne sànq maa ngi koy wax ci bi may tijji mais da xool ku mel ne par exemple mbiri Cheikh Omar Diagne képp bu Pam Ndiaye ko waxati ko waxati ko. waaw Pam Ndiaye dafa mujj mais xool sa wax kii li mu wax ko gën a garaaw. waaw mais mais c'est-à-dire c'est-à-dire dama la bëgg xamal ne. appel tey ñu wàcc atte la suba. la mu doon wax moom coppam. waaw dama ne li nga wax moo gën a garaaw te kenn du la woo léegi Pam Ndiaye parce que yow parce nga koo justifier Pam Ndiaye xam même bu xamee ne wax na mënuñu koo justifier rek mais yow li nga wax nii bu ma nee nekk ci réew la Pape Ndiaye doon wax man naa ne léegi sëñ Bara da ngay xool ku mel ni Cheikh Oumar am naarub libaande naarub libaande fu mu mën a fu mu mën a appelé tey ñu ñu àtte ko suba président Macky saala bu bëggee ñu tëjub noonam war na procureur bi kay kon loolu xel mën na caa ñaw d'accord ah, Cheikh Bara bàyyi man li ma li bëggoon wax mooy. Mhm. cest à lu mel ne justice bu ñu ne dañ ko instrumentaliser ñu bëgg a taxaw naan non amuñu respect ci justice ñu nangam mais ñoom ñoo am respect ci justice ba ab justice àtte àtteem ba pare ñu dem foog ay capture di ko dugal naan ay Ousmane Sonko benn kii moo ko moo ko moo ko moo ko àtte te pourtant maa xam moom itam dugalul te joroon na dossier boobu te bokk nit ñuy wax dañ na loolu jaru kii le Cheikh Bara ko wax léegi mais Cheikh Oumar Diagne li wax ba mu koy wax doon moom kase waxew moom la Clédor Sène dégg nga ak dambuj ak xay na sax euh, kii loo fàllu loo rak Moustapha Cissé boobu muy ziar waa Louga la ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo fa toogoon léegi mën nañu ko cee seppi moom kese yóbbu ko ci kaso bi fekk Abdou Karim Bey moom itam ñu teg ko ci ah bàyyi ñeneen ñi dambuj fii la toog démb def émission moom te pourtant ma nga woon ca table jooju doon waxee bu dee lañ fa wax ñoom ñëpp da leen engagé mu nekk benn réunion boo xam ne ñoom ñëpp xawma euh, buñ ci jàppee Samba war cee mën a jàpp Demba c'est-à-dire que Macky jëm boppam baatu tyran boobu nga xam ne moom la ngóor wax ba ñu ne moom lañ ko génnee Sénégal léegi maanaam génne gi bañ a génne gi benn affaire la waaye bu bu dëgg tyran la li ñu war a lijjanti mooy tyran la wala du tyran parce que tyran moom weesuwul ki nga xam ne day jël puissance populaire di ko jëfandikoo puissance souveraine plutôt di ko jëfandikoo ci nu mu ko neexee lu boo xam ne daanaka moo yaay jàmme boo a dem élection moom kese moo koy mooy toog ba mu ne ko mu jàppi élection du def doxal consensus ci dërëm te itam mooy xam ñam ciy demandoon mais fii la bu Abdoulaye Dione dem taxaw daal ne candidat yi duñu ma dërëm te matu ko c'est-à-dire li ñu nekk Macky Sall ci jëm boppam ñi mu àndal ak li ñu nekk di def di jël ay procès di ko tijji Sénégal ñoo talul fii 2024 li ci des ñuy demati ci benn procès bu mu mën a doon waxuma nag ay waxi appel sax waaye procès bu moom seen njiit ak ñi ñu àndal ñëpp ñu bàyyi seen caaxaat yi ñu nekk parce que nit ñi dañoo sonn ci ñoom. d' accord Issa. waaw après a nañoo dugg ak moom sax ci daara yi. mais avant loolu ma ma ma soof ci kii li mu wax. Hmm. xam nga sénégalais yi moom Ousmane Sonko bu njëkk 2021 Ousmane Sonko mu 2021 dafa jaar fii ci corniche bi di dem ñu ne ko trouble à l'ordre public jël ko dóor ko section de recherche mandat de de garde à vue sénégalais yi wàcc raag ak ñoom raag ak ñoom raag ak ñoom ba léegi moom ko police dabatee ci corniche bi bu ko jàppee këram lu ko yóbbu mu añi <laughs> waaye garde à vue xalaatatu ko. sénégalais yi nag niñ taxawee ba ba Ousmane Sonko kenn dootu ko garde à vie ba yeboo nu jéem a taxaw ba kenn dootu ko fi plainte hmm. waaw mu leer. waaw ah, Cheikh Bara loolu moom loolu moom dina garaaw di. ah mais ñu man dama ne la man maa la wax lii jàmmi réew mi bu Sonko yënduwut ci jàmm yow doo yendu ci jàmm sa jabar du ko yendu kii du ko yendu man sama jabar ku ko plainte ba li nga doon wax ci buur bi fin euh, buur bi nga xam ne waxuma yi dama ne la yow xam nga ne yow plainte yi politique moo ko lal Ousmane Sonko damay laaj ci li nga wax ni xar xar foofu dama am lu am solo nag loo xam ne hmm. damay toog léeg-léeg di ko xalaat musuma ko wax dama du ma ko wax ak kenn waaye dama ciy xalaat gis nga état ngir nga wax ko tey xam nga luy état hmm. état du Macky Sall du Antoine du Moussa Fall du procureur xam nga luy état ñun ñii ñooy ab état tey buñ toogoon ba mu yàgg benn xale bu ndaw nekk fii doomi kenn la ci ñoom kenn jékki-jékki jóg rek jël paaka ne ko ko dabax jam yaa ngi dégg ki ñuy woo gendarmerie la ñuy woo mu ñëw jël si ko gis nga gendarmerie bu ñëwee day fekk ñun ñii ñooy état bi d'accord nañ ci kii dafa tooñ kii dañ koy jàpp yóbbu ko gis nga bu dawoon làqatu ci suñ kër yi dañ koy génnee jox ko jàppkat yi ñooñu ay jàppkat lañ mais duñ état ñun ñii ñu ñuy jàppal ñooy état bi dégg nga gis nga bu demoon def ñetti fan ñu bàyyi ko mu ñibbi ñibbisiwaat ci kër gi ci koñ bi ñëpp ay mer oh non kii dañ ko waroon a téye téye luñ ko parce que def na nangam ci koñ bi dafa sàcc mi ngi nii rombaan nañu fi état bi mer gis nga bu fekkente ne dafa dem ba état moom léegi saa buy dugg ci koñ di jàpp si nit parce que état bi maanaam bu fekkee ñun ñi ñooy état bi su fekkee booy jàpp si nit léegi ci koñ ay xeer ngay lañ lay dóor téel téel téel nga làqatu ba jàpp ko koo koy jàppal xanaa jàppaloo ko askan wi xanaa jàppaloo ko bu fekkee ñun ñooy état bi ñun kii moo nekk Pape Maguette Pape Makhtar moo nekk dansé ci man mm-hmm. état maanaam jàppkat yi dañoo war a ñëw téyal ma ko pour ma mën a dund ci libre man maag waa Tëngéej mhm. dégg nga léegi Pape Maguette yow bu fekkee léegi koñ bi sàcc bu la sàcc boo jàpp bu subaa mu rombaat la kuñ woo ci foo béyee bu subaa mu rombaat la léegi police ñi muy jàpp bu ñëwee waa koñ bay génn yor seen i xeer ne doo laal waa soo ko téyee garde à vue ñu téye seen i xeer di dóor ci kaw policiers yi ba nga bàyyi ko léegi ñan la état bi di jàppal xanaa dama ne la sénégalais yi ñoo war a am fayda fi mu nekk nii gis nga Ousmane Sonko appeloo xaw ma borom tur wow xaw ma nan sàndarma bi dégg nga. dégg naa ci weewu bay démb ñu ne dossier boobu ubbi nañ ko. nañ ko. dégg naa ko ci weewu bay fa ma ko déggee moom xawe na dégg naa ko ne ne laal nañ ña ngay ña ngay ubbi ubbi ak ci yem nit ñi dañoo sonn ci booy di dee dégg nga affaire yi di am ci réew mi loolu c'est trop dégg nga nañ dañ nañ dem ci ay politique. yu ah, ah, ay élection yu normal laa wax bu fekkee man ngeen a convaincre sénégalais ñu bañ a woteel Ousmane Sonko ñu bañ a ko woteel ba kon ñi nar a doon kon dinañ doon état finalement kan mooy doon li ngay prôné nii ñi nar a ñi nar a ñëw 2024 ba ba bu ñëwee dina fekk état bu muy yor mais lan mooy état lan mooy état atte nañ atte dafa wuy ji première fois dañ koo joxut plainte deuxième fois dafa dem na nañ ko may ay pôle avocat mbindu dafa am avocat yu bëgg constitué wu ci dossier bi troisième fois da doon wuy ji ñu kar ko fii dóor ko gaañ ko ba mu yeggee sonn coono boo xam ne ci pat patee gi ñu ko patam patamee mënta mënta mënta plaider quatrième fois feebaram médecin taxaw ne bul dem parce que wéroo faale wuñ loolu ba fu yee ay droit am atte ko ay awakaam di ko kaas ñu génne leen jël deux cent millions ci ab semeur boo xam ne yaa ko dàq amatum xëy nga ne fayal deux cent million teg naa la ñaari weer ci loo xam ne mën naa am bu ñëwoon wax wax wax ba yey la nga ne ko teg naa la ñaari weer pourtant lii ma la wax nii jaay doole la tooñ la est-ce que sénégalais kaas nañ ko ta wax nañ ci dara dañ ne cell bàyyi leen dañ ne cell bàyyi leen pourtant juge ko def yow xam nga ne lim def tegu ko fen parce que ab juge médecin dafa nekk assance assermenté comme juge mënta ne kii feebar nga ne ko nga ne ko dama koy àtte par force léegi bu fekkoon jaag la yor nag ñu ñëw ne ko daan nañ la deux cent millions rek mu tiit dee nag fan la ko teg hmm? léegi loolu. dama laa wax ne nikku ne dañuy wax ne Sonko dafa nekkul justiciable justiciable xaw ma. injusticiable kenn nga xam ne kenn du ko laal kenn du ko jàpp waxuma loolu. sénégalais la comme sénégalais yi. waaye mbilim lacc kaay wuyu mbilim lacc ñaari booy dee fii mbilim lacc dëkk bi tàkk kenn du génn. loolu moom daa war a dakk waaw Cheikh xanaa man di nga ma déglu. <laughs> dafa war a dakk mu leer non sànq yow dama lay. non moom laa doon posé question. <laughs> Ah, <laughs> déedéet waxuma loolu euh, sànq. dama la jox kàddu nga ne am na question booy posé waaw léegi am naa question. ah voilà c'est ça euh, lu may laaj mooy sànq yaa ngi naan euh, bëggu du ngeen fi mayeti keneen porter plainte Sonko su ma juumul loolu nga wax. non man waxuma lool man a xam nga man awma doole dama ne sénégalais yi. waaw léegi ñoo war a maase ci mhm. ay. mbilim lacc nga naan Sonko kaay wuy ji booy di dee loolu ñu taxaw ba du amati. waaw léegi euh, fi nga toog